Bougane euh, bi nga xam ne moo nekkoon le préfet de Dakar ñu yóbbu ko au niveau de li nga xam ne mooy gouverneur voilà gouverneur au niveau de Ziguinchor euh, loolu aussi nag ñoo koy apprécier qui était là qui est toujours un peu <laughs> voilà parce que après ñu yóbbu ko Ziguinchor écoutez c'est de l'administration donc il faut euh, il faut se parer à toute éventualité bu ñu la nee suba dañu bëgg nga dem Guinguinéo da ngay dem gin Guinguinéo Ça, ce sont ses supérieurs qui, qui, qui jugent le nécessaire de le transférer dans une zone diverse. C'est à eux de juger. Moi, je ne suis pas dans l'administration. Mais jeune Ousmane Sonko aussi, nous avons travail mortal au niveau de Dakar avec les interdictions de manifestation, etc. Écoutez. Euh, ça vous dit rien Interdiction de manifestation, ça c'est confisqué. Ils ont confisqué le droit des citoyens. Ça c'est la confiscation des droits citoyens. Et c'est pas normal. Maintenant, est-ce que man war naa mën a wax si ndax liñ ko transfert ou pas non c'est pas moi qui décide je lui ai pas l'opportunité d'être le gouverneur là-bas c'est le président de la République de par l'administration qu'il dirige c'est qui a la prérogative d'amener un gouverneur là où il veut Okay. de le nommer où il veut donc il a jugé nécessaire de l'amener moi je ne cherche honnêtement je ne cherche pas le rat là où il n'y a pas de fromage. C'est pas à moi de donner une euh, appréciation par rapport à une nomination qui a été faite. D'autant plus que mmh. cette nomination, si le droit est dit et si le droit est fait pour tout citoyen qui jouit de ses fonctions, il fera ce qu'il doit faire là où il est, qu'il soit à Dakar ou à Ziguinchor. Mmh. S'il applique la loi comme elle est dite, non, la me gêner. D'où me gêner na def liggéeyam il est dans l'administration il n'a qu'à faire ce que l'administration euh, préconise pour lui et puis keneen ku fi ñëw it ñu ne la dalal jàmm mais nañu fexe ba nañu def li nga xamante ne mooy lii yoon mhm. ñu bàyyi nit ñi ñu jouir de leur droit ku bëgg manifester nga manifester parce que manifestation bi nga xamante ne ñun de waa passé bu ñu mës a def buñ ko defee coow du jib bal du tàkk lacrymogène du jig te bu ñu paree dañ koy nettoyer ba mu set wecc mhm. donc gëm naa ni l'opposition aujourd'hui war nañ leen mën a bàyyi ñu exprimer lu ñu bëgg a exprimer sans pour autant mu am gêne plus que de l'autre camp ku ci bëgg dajaloo wala ku ci bëgg indi say nit wala ku ci bëgg a def sa xawaare wala sa ndaje mhm. danga koy def te dara du la ébranler dara du la sonal donc deux poids deux mesures boobu nañ si bàyyi xel ñu xam ne ñu ñëpp ay sénégalais lañ te fii ak juróomi weer bamba mhm. dëkk bi dafay changer de ku bu bàyyi xel fii ak juróomi weer bu neexee yàlla dëkk bi dafay changer et cette rupture là elle est là elle est présente. ok ku ci bu bàyyi xel. ok le phénomène de la sonkorisation ñu bëri dañu jàpp ne c'est pas trop efficace euh, l'affaire de Yewwi également parce que gis nañ ne combat bi ni ko doon porté ils n'ont pas porté ça ay manifestations interdites après ñu bàyyi toog et cetera loolu aussi jàpp nga serait quasiment efficace avec la sonkorisation si manifestation ñu tere ñu dem toog. Bamba lan nga bëgg. mais bu njëkk gaa yi ñoon foncé dañuy def ñu ne yi dañuy def ku mel ni Guy Marius Sagna mais gis nañ maintenant mu ngi ci ay tournée. Guy Marius Sagna est dans son droit Guy Marius Sagna fait ce qu'il doit faire chacun fait ce qu'il doit faire là où il doit vraiment nañ ko bàyyi tout tranquille Guy Marius Sagna mi ngi def lu mu war a def Birame mi ngi def lu mu war a def Diomaye mi ngi def lu mu war a def malgré que yàlla mi ngi ko téye Euh, yàlla na ko yàlla may mu gaaw génn incha allah Abbas mi ngi def lu mu war a def euh, El Malick mi ngi def lu mu war a def léegi ndax yeewu askan bi dafa war a foncer wala du foncer man duma ma leader ci yeewu askan bi sama gis gi su ma la ko waxee man la concerné man personnellement mm-hmm. la concerné et amaana sama gis-gis mën na woro ak chart yi nga xamante ne moo tënk yeewu askan bi te bu dul dara par worma ak cër sama liider muy président Ousmane Sonko bokk ci leader yi nga xamante ne ñoo nekk ci yeewu askan bi ñoom ñooy xool ni ñu xalaatee ni moo gën ci doxalin boobu ñun ñuy ay ndaw ñu topp leen ci loolu man loolu mooy sama cër. ndax su ma la waxee sama xalaat mën na waroo ak ñoom seen gis-gis. donc bu fekkee foncé nañ wala foncé wuñu. Hmm. kooku seen gis-gis la mais en tant que citoyen mën naa wax ni le droit. n'est pas donné ni respecté pour ñii nga xam dañu bëgg manifester parce que le citoyen a le droit de manifester. Mhm. soo ko nee trouble à l'ordre public loolu mooy excuse bi nga xamante ne ça comme combien de mois trouble à l'ordre public trouble à l'ordre public mais pourtant derrière bu ñu amee xawaare trouble à l'ordre public du fa am. Mhm. ñoom bu ñu dajaloo dañuy reyante dañuy dóorante tojante ay chaise dammante ay chaise waxante lu ñaaw ñun fu ñu dajee génnal ma benn yoon Bamba foo gisee Pastef woote moom fa jafe-jafe am. Mhm. bu ñu encadré. ànd ak ñun jàppale ñu muy ñi nga xamante ne mooy la police bu ñu ànd ak ñun encadré dañuy dem si jàmm ak salaam wax li ñu naqari wax li ñu neexul te am nañ ci droit. bu ñu paree kenn ku ne ñibbi sa kër ci jàmm ak salaam. ok donc nañ leen jox seen droit. Mhm. et c'est pas valable juste pour le mais pour tout citoyen bu bëgg manifester. Mhm. muy lu neex muy lu ko naqari muy li nga xamante ne d'accordu ci it.

Guy Marius Sagna rek wax ko di yow sa gémmiñu bopp wax nga ma ni El Malick wax na la ko El Malick wax ko Guy Marius Sagna wax ko Abbas Fall wax ko Birame Souleye wax ko ma wax ko. mais que li def après moom xaw a jaaxal. waaw mais nag loolu ah? ñun la concerné. candidature yu <laughs> candidature yu loolu moom. voilà ku ne jël sa Olof Ndiaye nee na dem jël parrainage. Olof Ndiaye nee na kenn ku ci ne buñ la defalee sup na ngay tojee sa bopp ginaar yaa ko xam bàyyi ñu toj suñu bopp ginaar rek play bi daal tegal naa la ko. ku bëgg daal na nga toog xaar rek bu dee défense nga wala offense nga playbook baa ngi ñëw te bu ñëwee dina daal sa kaw. wala gii président dafa lu ko dee daal ne ko. gii bu ñëwee dina la tontul boppam bu ñu déwee gii kon dee nañ Biram dee nañ Abbas dee nañ El ndax ñoom juróom lañ di yow yaa ngi singali kenn. juróom lañu bu ko bu leen faram. mais wax naa la man la la posture de Guy ça m'intéresse beaucoup parce que <laughs> il a vraiment beaucoup changé quoi. je suis d'accord ah, c'est ton choix <laughs> écoutez gis nga nit. oui ñëppay dans la vie la progression. et que même boo xoolee ci comportement. la dafa xaw a. semblé mm, beaucoup ak Ousmane mais rek may gëli. waaw gis nga nit la progression dafa di lu normal. effectivement dafa war a changer Bamba il y a deux ans et Bamba aujourd'hui il une nette différence oui c'est vrai tu as gagné en maturité mm -hmm. tu as gagné en expérience mais aussi <laughs> Bamba même sa yaram dafay changer nee na dans la vie tout change tout devient en philosophie c'est ça qu'on appelle Pantari tout change tout devient Guy Marius Sagna c'est normal il évolue comme tu as évolué comme j'ai évolué parce que yaa ngi may wax man basketteur la <laughs> mais je fais du basket mais je fais du basket dans la politique aussi. <laughs> et mais bien sûr. moo tax nga indi sa fameux slogan là xamoon <laughs> na ko. le playbook waaw le playbook. c'est le playbook. et bien sûr donc laissez Guy. ok progresser et okay. devenir son Guy qu'il doit être. ok. su ñëwee nag. question boobu nga laaj ko ko boppam. en cas on suivra ci par rapport ak Guy Marius Sagna en tout cas euh, bu baax a baax ak contentement. xam naa yàgg nañu ko bëgg ak jotaay bi. macha xawoon euh, jafe ak tournée yi nga nekk ak activités yi nga nekk. macha allah cas jàppal ne am nañu mbégte et nous sommes très ñu bàyyi rek nga joxe kàddu gu. waaw bi ñoo ko bokk